Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. dal ak jàmm njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye dal la woote ci campagne électorale bi nu war a soobu ñeel élection législative yi nam amal fan juróom-ñaar ci weeru novembre di ñëw ubbil journal bii di réew mi quotidien Bassirou jàmm la woote mi ngi woo bépp sénégalais ñu ànd ak dal ci kàddu yi nga xamante ne nag moom la noo yëkkati te di ko woddu moom nag nee na xarala yu yees yi lim cey gis neexu ko xemee ci réseaux sociaux yooyu lee di yëkkati ay kàddu yu nga xamante ne nag moom rafetlu ko Le Soleil yéene kaay ni njiitu réew mi moom ak dal la woote ak jàmm ci wàccaayu campagne bi ñeel élection législative yi nga xamante ne nag moom la war a amal moom njiitu réew mi ci benn point de bu mu doon amal ca palais ba dem ci la profité daal di wax juróomi dëggam yi nga xamante ne nag moom la bëgg Sénégal doxalee ko mi ngi woo nag bépp acteur politique ñu nekk ay responsable ànd ak dal ba noppi xoolaat kàdd yi nga xamante ne nag moom la ñu yëkkati njiitu réew mi nee na kàddu yooyu nag dañ ko war di wodd warul nekk ay kadd yu nga xamante ne nag day ëmb ak coxor ndaxte moom jiitu réew mi jàpp na ne élection yi nag feetu démocratie la war a doon waaye warul doon bés bu nga xamante ne day xaajale ay doomu Sénégal mbiru Bougane ak Samba Ndiaye moom jiitu réew mi indi na ci ay leeral ubbil journal bi di Sud Quotidien ñëw nag ñun campagne électorale bi nga xamante ne nag war naa tàmbalee ëllëg ci dimanche ji njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay Faye ngi woote jàmm ñeen fukk nag ak benn liste ñoom ñoo nar a jongante ci élection législative yi nga xamante ne nag namm nan kaa amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gouvernement bii di ñëw Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee nag na ñëpp respecté àq ak yellefu doomu aadama yi ba noppi ànd ak dal l'observateur ñëwaat ak ñun ci kàddu njiitu réew mi ak bu Ousmane Sonko Eliman jëruñi waroo gi ci am ci mbiru Samba Ndiaye moom njiitu mi mi ngi jox leçon waa Pastef yi nga xamante ne nag dañ koo tegoon pression ngir mu folli Samba Ndiaye ca jamono jooj nag njiitu réew mi mi ngi wooteeg dal ci élection yi nga xamante ne nag moom lañ dëgmal Diomaye Faye sóob na benn tànkam réforme yi nga xamante ne nag ñi ngi ko doon amal fan yi tàmbale nañ ko sentir xaat mi ngi woo acteur politique yi ñu ànd ak dal ba noppi moytu kàddu yi nga xamante ne nag day xaajale démb ba mu doon jàkkaarloo taskat xibaar yi moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye indi na ay leeral ci tabb gi nga xamante ne nag tabb naka Samba Ndiaye ca boppu PCA bu SNHLM ci mbiru Bougane Gueye Dany moom it indi na ci ay leeral nee na nag day bàyyi yoon def liggéeyam sunu naataango yi nekk na ci pression bi nga xamante ne nag waa Pastef ñi ngi ko doon tekk dëkk ngir mu wàccee Samba Ndiaye ci boppu PCA bu HLM sunu naataangoo yi ne moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye weddi na Ousmane Sonko ndaxte nag pression boobule bu mu agsee ci kaw Elimane jawriñ yi moom nag dafa xam ne ni foog ñu indi ay joyante ci mbir yi tabbin yi waaye nag sunu naataango bi ba mu ko laajee njiiti réew mi ca point de presse bi daf ko xamal ni kaddu yooyu nag kaddu Elimane jawriñ la waaye du kàddoom ndaxte njiit day jéggale di jëlale warul di fayontee Le Quotidien yéen kaay dellusiwaat ak ñun ci débat bi nga xamante ne nag Ousmane Sonko woowoon nag Amadou Ba débat boobu nag boo moytul du moom le quotidien mi ngi sans accord ndaxte CNRA bi nga xamante nag mooy régulateur bi moom nag nee na joxewul benn accord ngir débat boobu am waaye nag Amadou Ba nekkoon fi élimaani jëwriñ yi ak Ousmane Sonko njiitu Pastef ñoom nag fanu taxawoon jógewun fa Pastef googule nag am na ab kànga bu nga xamante ni noppi na ngir jàppale ko ci élection législative yi ñu dëgmal mu di El Hadj Bamaro di doomu Sénégal bu nekk ca Cameroun moom nag na taxaw di ñëw ne nag moom lay doxee moom lay waxee le quotidien yéen kaay dellu siwaat ak ñun ci mbiru Bougane Gueye Dany ak kaso ga mu nekk ca Tambacounda moom nag soobu na ci grève xiifal li ko waral nee na day ragalub kaaraangeem bépp kilifa yi administration pénitentiaire ñam buñ ko jox rek da koy daal di delloo jamono ji nag yaayam mi ngi ci njàq rek tiis ndax ragal wér-gu-yaramu doomam day yendoo ak fanaanek jooy tàggat yaram ak réew mi sport sunu gaynde yu ndaw yi dem nañ ca demi-finale ginnaaw bu ñu làppee démb yu metti équipe bu bi ñetti bal ci benn